di baal ñëpp àq di baalu ñëpp àq di nuyu bépp kilifa diine bépp kilifa aada bu ñuy seetaan di am contentement bu baax a baax si palaato bi di nuyu Aliou di nuyu Mamadou Medina TV ñëpp di nuy équipe LP Events si tamit nuyu suñu grand idi mu jël nuyoo bi teg ko si loxo LB waaw non buri moo ne ma jaaraat ah, fa rek buri moo ne ma jaaraat fa rek moo tax ma jaaraat fa ah, maa ngi koy ñëwaale tamit sama maman sama lépp daanaka koor gi yëpp foofu laa ndogoo muy Maramba mm. ah Maramba bu PRP maa ngi a baax mais naa ko de ne day ñëw day ñëwaat ah, xam nga yàgg na ñëw mais day ñëwaat kooku moo gaaw si social kooku muy Maramba borom Fass maa ngi koy nuyu au passage nuyu di wax ni daam euh, LP Events daanaka dugg na si làmb ji. Mm-hmm. waaw dugg na si làmb ji mu doon li nga xamante tey jii nii ñun du ñu du ñu du di innover. Mm-hmm. parce que te ñun culture Sénégal lañ ci nekkal. Mm-hmm. waaw parce que ñun ay xale yoo xamante tey jii nii dañoo ñëw pour développer suñu dëkk. rawatina Afrique. waaw parce que lu ñuy def. ñëpp daanaka si lañu bokk sot si la a def si moo tax LP Events si taxawal na combat bu mag a mag ànd si petit promoteur ah le 26 juin na la doon arène nationale Ada Fass qualifié bu fas Ada bu fas nekk écurie Fass Benno bokk fukk penca ñaari du bëri Ndakaaru nar ko boole qualifié de mu doon mbëru banlieue tamit Caaroy yëmbal ñëpp nekk ci ginnaawam rawatina banlieue. classico boobu noonu la LP Events taxawal le 26 juin arène nationale mu doon li nga xamante ne làmb derby la. Mm-hmm. waaw. làmb derby la drapo bi drapeau bi kan kan lañ ko tuddee parce que boo waxee combat à la mais daam yow laal na ma de am na loo xamante tey jii fii laa xëy njëkk a waxee. ah acca fii lay xewee. Hmm. fii ci Medina TV HD. acca boo xamante mooy leeral lépp. HD loolu lay signifié. Hmm. comprendre comme télé boo xamante la macha allah seetu la. Hmm. seetu àdduna bi. drapo bi nag ñu ngi ko jagleel ki nga xamante mooy meeru Medina. ah sunu maire. suñu maire. monsieur le ministre. Eh, Bamba Fall am na bis. monsieur le ministre Bamba Fall. suñu maire suñu ministre suñu lépp. lu tax ñu koy def. maanaam dañuy fédérewaat coloré suñu diggante ñun LP Events ak moom. que def nañu fi bés mu jàpp si te ñun ay gor lañu. te rawatina ay ay si yax bu ñu bokk maanaam kenn du jam naani. Mm-hmm. waaw ñun daanaka boo ñu woowee ne yëfu gor la la koy delloo. Bamba Fall moom la jël drapeau bi jagleel ko ko. Mhm. moom xam mooy suñu ministre mooy suñu maire. Ada Fass Polifay 2 LP event day jëlaat drapeau bi jagleel ko Bamba Fall. Mhm. te xaaruñu si dara nag. ngor bu ñu won mhm. ak ak ak gëm liggéey. Ah, ak gëm jeune buy développé. ak maanaam xam boppam. loolu moo tax ñu jëlaat delloo bi ko ko moom Bamba Fall drapeau bi mu doon drapeau te waxaguma ko ko. waxagoo ko Bamba Fall yëgul lu ma wax nii fii laa ko njëkk waxee. kon li wax kay moom yegg fii laa ko njëkk a waxee. sax LP event sax yëguguñ ko. Hmm. xam naa nag gars yi dinañ naan président na toog wax lu muy wax tout mais xam naa ne maa leen ko ñaan. Hmm. parce que Bamba Fall daanaka suñu Bamba Fall la. te Bamba Fall Bamba Fall national la international partout dans le monde ñëpp ñoo koy bëggee parce que liggéey bu muy def si biir commune am ñëpp ñoo ko rafetlu. bokk na si maire yoo xamante mun naa wax ni 19 communes département de Dakar bokk na maire yoo xamante maire yu gën a liggéey seen commune la mm. bu nekkul PA bi di des si 19 communes yi comme Bamba Fall moom moom moom drapeau bi di wax ni drapeau bi drapeau la le 26 juin am na tamit yeneen drapeau yu si am te ay doom maintenant tamit am na tamit ñu kuñ ko si tuddee comprendre mm-hmm. Ousmane Gueye tamit dañ ko si tuddee drapeau Ousmane Gueye mm-hmm. ah moom la xam ne griot la ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mu doon ku baax koo xamante képp koo xamante artiste na mm-hmm. wala Ah, ah, wala eh, promoteur nga war na ko delloo njukkal Ousmane Gueye mm. parce que yàgg nit yàgg na am ay bés muy ñëw di leen jàppale comme drapeau am bii nii Ousmane Gueye mu ngi si woo ñëpp na ñëpp ñëw teewoo ko ñëw jàppale ko mm-hmm. ñu tuddee nag Lotis Mbacke Lotis Mbacke mu bokk LP e events tamit mm-hmm. mu doon suñu directrice madame Lotis ah moo tax mu am si drapeau tamit drapeau bi waa LP Events tamit delloo ko ko delloowaale ko si njukkal si liggéey bu ñuy liggéeyal ak ñun si LP Events bi di wax ni drapeau bi tamit drapeau am la moom tamit ñu ngi si woo tamit ñëpp ñu si woo tamit képp koo xamante xaritam la am di jàmmam ak lépp mu ñëw teewe loolu daam làmb bàyyi noonu le 26 juin la arène nationale billet yi dinañ ko yombalal ñëpp ñëw si te dama si àndal Medina TV HD ñoom na xam man lu ma dugg ñoom dañ si nekk LP Events lu ma dugg dañ si nekk sot si la ak def si mm-hmm. te mun naa wax ni euh, barigo teg si mbàkkal la Medina TV puus mu dem puus mu dem LP tamit waxi noppi tamit ñun ñaar ñoo jugandoo comme ñooy demandoo LP promoteur jeune Medina TV xale tere xale. waaw dëgg la dëgg la. daam maa ngi maa ngi am contentement fierté bu baax a baax li ngeen ma dalal fii ah, kontaan naa bu baax a baax waaw mm. eh, di gërëm waat ñëpp di gërëm mbokk internet yi ñu seetaan di gërëm tamit ñu ma bokkal plateau bi sànq wax naa ko di gërëm tamit équipe Medina TV di wax ni seen liggéey rafet na di wax ni gars yi leen jàppale parce que ay jeunes nañ mun naa wax ni ay jeunes yi am ambition ngeen tey jii li ngeen def nii gox bu si nekk tamit référence la daanaka télé sa sa télé gox da ciy wane lépp loo xamante ay actualité la rawatina li am si biir réew ab bitim réew fépp dinañ koy fësal Medina TV comme maa ngi jaajëfal bu baax a baax di leen kontaanee ah, di gërëm tamit équipe LP Events bi ñëpp di jël gërëm bi teg ko si loxo grand Idi ah Idi moom borom Angleterre kenn du moom tey ji bi ñu tudd LP Events yàlla mooy lépp yaa ngi dégg man dama fi nekk nii rek di góorlu di gërëm tamit Simon Ba borom Simon Textile daanaka sama jigéen la sama xarit la ku ma xool si moom mere ma lu ma nekk mu nekk si Simon maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di gërëm tamit waa Suisse Gold tey jii lu ma génn nii tusi bi muy waa Suisse Gold ñoo ma ko jox sa tusi muy foofu tusi maam faatu ñuy foofu woo nem ma comprendre maa ngi woo mais jotuma leen pour na ñoom jël seen tusi Omar maa lay jaajëfal bu baax a baax tusi bi kontaan naa moo jàll si tailleur bi moo jàll si ñaw bi Iba moom na xam ne baaxul waaw mun naa machine d'or moom man maa koy njëkk organiser organisé. ah ciseau d'or am na. machine d'or maa koy njëkk a organisé te yaakaar naa ni téer yi waajal loolu noonu te Iba moom nga xam ne sama téer la lu mu ñawul baaxul. moo nekk fas dolom si benn ñee bi maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax ah baa nekk nii sax waaw Lamine dafa garaaw de seen booy bi comme moo def nii mais Lamine mais Lamine mais Lamine mais Lamine mais Lamine Lamine lu mu créé lii ndeysaan monsieur le maire ah koy jaajëfal bu baax a baax ah di di di di jaajëfal tamit équipe bam bi ñëpp tamit ah di jaajëfal képp koo xamante yaa ngi liggéeyal moom lañ ah, du nuyu tamit suñu waa kër ah mënuma jógee fi tamit te nuyu ma tamit suñu waa kër ni tamit amul lu dul ay waajuram daanaka du ma toog télé sax leen tudd lu bari parce awma habitude boobu noonu bu baax mais maa ngi tuubaat bu baax a baax di leen baalu tamit ak du nuyu tamit sama tante du nuyu sama papa di a ko fu mu jógee mboolem jur du nuyu sama ah, bu ma àndal élage suñu ménageur maa ngi koy nuyu bu baax a baax du sama jigéen Mami Ndiaye moom tamit nga xam ne euh, jigéen LP yëpp moo leen dirigé ànd si ñoom Mariam Samb ñoom Marimar Bousso Aya ñoom ñëpp ku lim juum di maa leen jaajëfal ñëpp contentement fierté bu baax a baax si teewaayu fii nii kontaan naa jërëjëf rendez-vous le 26 juin. arène nationale. Médina TV HD. yow tey yaa ngi suñu invité principal. yow tey da ngay ba émission bi jeex. voilà léegi xam nañu def. sama réalisateur dañu may dugalal. soowu njóogu bi soowu njóogu affaire bi bu defee rek. ba daal di tàggatoo gi nga xam ne mooy mooy kii LP. Mhm. acca jaajëf.